dama ngi sant di gërëm rawatina taalibe yi lépp luñ mënoon defoon daaw fukk def nañ ko ñaar fukk seen Pastef mbir mi daal dafa mel ni amatuñ ci sago ci liggéeyal sëñ bi waaw yàlla ñu gën a am kattan leen mën a jiite ak ngërëm luñ leen delloo ñu ngi sant ñëpp ko gërëm di leen sant yéen. yàlla dogal nag liggéey bi tey ñu ngi liggéey dañ koo jëlee si suñu kilifa ga muy Cheikh Ibrahima Fall di kilifa Baye Fall yëpp mu doon digal loo xam ne mu ko jëloon Cheikhul Khadim mu joxoon ko ndigalul ne ko dama am gan te bëgguma ko teral Cheikh dafa si déggug taalibeem mu xam ne gan goo kat mooy weeru koor bi koor gi teroo mu jox ndigal mur yi danañ toog ay berne di ko yës sëriñ bi ñu ko daan toog di ko yenu di ko yóbbu njaaram ci sëriñ bi yàlla dogal ci xàll foofu la la déparé waaye li ci ëpp solo mooy la toxoon Cheikh Rafal ak Serigne Touba jóg ndax la waral Cheikh Rafal ak Serigne Touba jóg mooy Cheikh Ibra dafa jógoon di seet sëriñ bi te booba ci saayir xamuñu xam gum ko xam yàlla ko mu ko seet ba gis ko sëñ mel ni mu mel yor li njariñ lii mu yor siyaar Fall wane ko kon loola taxoon mu jóg nag nan xam bu baax xam ne du yëfi caaxaan loola mooy euh, weesu ragal yàlla te di ko jaamu te di ko liggéeyal ndax murit bu ne fa nga nekk di fa liggéeyal euh, di fa liggéeyal sëriñ bi jëm yàlla ji rek moo tax buñ gis kenn kuy dox si mbedd mi yorug deram di liggéey ban yaakaar leneen la am na ñoo xam sax da naan murid dañ naan euh, Baay Faal dañuy jaamu sëriñ bi dëgg la da dañuy jaamu yàlla jaarlu ko sëriñ bi ndax lépp yàlla ko moom. te jëf yëpp la yàlla fay ju yëpp jëf joo xam ne dañ caa dañ caa dañ caa euh, pas pas def ko ngir jëm yàlla te yàlla rek tax yàlla da koy fay. liggéey bi Cheikh Rafa liggéeyal Sëriñ Tuubaa nag jëm yàlla ji rek moo tax ñu koy jaaral Sëriñ Tuubaa ak jëm Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu sa wa sallam di ko jàll jaarale Sëriñ Tuubaa ñu ko yóbbu si si si si ci euh, ci jullit ñi. dana nag jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla jaamu yàlla nag kurus ak der waaye liggéeyal yàlla si nit ñi si jaamu yàlla yi loola moo waral nag eh, lii foo demee kër Baye Fall goo dem da ngay fekk mu fees dell bernde yi bari fa lool ñu koy def ngir jëm yàlla ji di ko def ngir jëm Seydina Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ko def ngir jëm Serigne Touba di ko def si pas-pas Cheikh Ibra Fall loola mooy moo waral tey ndogu yii ah yàlla ko na fekk jeexit eh, fekkoon na waajuram sëñ jeex Ibrahima Ngor daal di ko liggéey liggéey mucc ayib daal di ko sëñ jeex mu doon liggéey boo xam ne jamono yooyu kenn bu ca teg bët tey nag yëf yi neex na yaatu na ba fen fu na ña ngi fay def lu ne ndax wërsëg bi gën naa yaatu nit ñi gën noonu bari waaye am na jamono yoo xam ne metti woon na waaye téewutum boobu sëñ jeexal bu saa ñëw fii it da ngay fekk kër gi mel nii xiiwal yi eh, eh, réye nii sëñ jeexit bi mu néewit loolee ñu nekkoon démb da koo yokk da koo yokk bu baax a baax ak pas-pasam doon jàmbaar lool comme ni ma ko waxee tur yi du ko ndax lépp lépp loo xam ne lu baax nga fa ma ngi ca loola damay faral di wax fépp foo foo ko dégg rek xam ne mu ngay dimbalee foofa ndax lu mu yor lépp si doomu la koy loo muy tëj jeex ndigal loola moom mooy li nga xam ne moo nekk ci sëriñ bi euh, murid yi nga xam ne yàlla dogal na tamit sama borom def mu ànd ñu ànd ak moom it doon murid yoo xam ne ñu la sëriñ bi bëgg ci taalibe bi nekk na ci ñoom mooy ni ma ko tënkee léegi rek di jëf ngir jëm yàlla ndax fii lu ne fii waaye nag ñi koy def ñëpp jëm yàlla ji tax ñu koy def euh, di sant sëriñ Moustapha Mouhamed mi nga xam ne tey mooy suñu wàcc la euh, ñu sant bu baax di ñaan sama borom yokk xéewalam yokk jàmmam Euh, si njàmbaaram moom it ndax la ko sëñ Mbàkke soxla bàyyiloon euh, sëñ Mbàkke Mouhamed wax dëgg yàlla daf koo yokk waaye dara dellu ci ginnaaw di ñaan sëñ Mbàkke sama borom yokk ay leeram moom it jàmbaar ga fi nekk woon ak la fi nekk woon ku ne xam na ko adduna yëpp daa doon wutigu lépp euh, sosi moom waaye mosta yéen dab dërëm bi mu fiy jóge bàyyi fi dara lépp da ko delloo si yàlla loolu nag moo taxoon sëñ bi woote sëñ bi li mu woote mooy ngir jëm yàlla ji li ci waaye defee nga def ko ngir yàlla ji liggéey bi nañu liggéey ñu ne ngir jëm yàlla moo <laughs> Ah, mooy suñu pas-pas ñun ñëpp moo ñu dajale fii it fu waaye jóge lu mu sori sori ak lu mu jege jege ba ngay jógee si kër moom jëm yàlla ji rek moo la yëkkati waaw ah, dañ koy jëf nag ngir jëm yàlla di ko delloo ko lépp si eh, ko sëriñ bi nga xam ne nag moom moo fi nekkal suñu borom ndax la la la nu tëwoon jafe ñu sëñ bee ñu ko andil eh, te te te kenn ku ne sa mbir na muy doxee mooy nag jàpp sëriñ bi rek ku la gën a jàpp sëriñ bi gën laa fonk sëriñ bi gën la ko nangoo nangoo liggéeyal moo lay man si fànn fànn yëpp ndax liy jariñ sëriñ Tuubaa ko yor te tey liy jëriñe yàlla da ko tënk ci liggéeyal Sëñ Tuubaa la siy blaat nu a julli baax na na xam koor baax na na xam natt baax na xam waaye li gën a wér mooy liggéeyal Sëñ Tuubaa